Basumo Basumo encore à vider. sous la pluie je viens de quitter le boulot parce qu'ici il n'y a pas d'heure de boulot Ousmane Sonko nous sommes un politicien un politicien ne peut pas changer un système biñ Ousmane Ousmane Sonko technocrate la du politicien du dugg ci la ñuy complot du dugg c'était le Ousmane Sonko va en guerre venez on va vous battre on va se battre passef bi muy dëgër que du tànk Pastef di dëgër doonul woon politique politicien bi passef di deuguer keñ la la jox ce n'était pas passef politicien passef ni mu fexé ba am tuuram bi du ci politique la ko am te politique rew du ay naxanté moo koy lal rew ay pexe lalul rew Cette communication, c'est à C'est cette communication qu'on a fait pour organiser ou pour gagner. En connaissance de cause. Cette communication, 111 parrainages. 111 parrainages. 4 millions de parrains. Si vous 44 000 parrains, nous avons 4 millions 400 de parrains. 1000 je suis d'accord wante bu 4 millions de parrains yeneen candidats yëpp am seeni parrain ak parrainage bi si tuuru kan lañ koy parrainer gars yi ñu ngi piégé suñu bopp li ma leen wax démb laa leen wax ak tey kuy saw kuy tëdd jaaxaan saw ba mu neex la sa bopp ngay njëkk tooyal doo tooyal ndeyu kenn lima len wax la len waxat duma ko ragal duma ci delu ginaaw li ngeen di daw ba tax ku nek di rumale di ratale di na féq na buñu xexé ñak buñu xexul ñu bi tok fi buñu xexul xeexul ba ruutale li ñuy ruutaleeg Ousmane Sonko ba baye bu Ousmane Sonko baye d'accord yenn yi ba baye ba signé yenn yi ba baye bu fi toogee décevoir len té man duma nangul lolu man nee naa leen Sénégal la ma gënal jëmi Ousmane Sonko Sénégal la ma gënal jëmi Macky Sall gëw ma nday kuy taxaw bu Sénégal amee soxla gëw ma loolu moo tax chaque fois ma leen je ne suis pas né de la dernière pluie bokk ma si lu ngeen bokk fëxër fëxër gi xamu leen fi ngeen di taxaw vous n'avez plus de repère déedéet ñun suñu reper dañ ko am suñu reper mooy lan delloo si république bi si république bi mooy defaat Sénégal dëkk bu normal comme Abdou Diouf Dame Kharam, ji il est vivant il ne veut pas parler Abdoulaye Wad, doomi Salapar, kusi ngal bi il ne veut pas parler Dame Kharam, yi ñu ñoo ñoo yàq réew mi jox ko un imbécile la volonté d'une seule personne pesé sur 17 millions de Sénégalais 17 millions pesé sur 4 millions de fecckat yi bongo sur 4 millions de danseurs au Sénégal 4 millions de danseurs pour wane na noonu da ngeen far may wax da ngay wax Pastef de am dal xel bu dal ne leen non peuple bi dañuy xaar ba conseil constitutionnel wax da ngeen ni dul boog pour muy clair ku ne da ngay xaar ba conseil constitutionnel wax parce que yow da ngay fen sa bopp di fen nday réew mi di fen askan bi di fen sa njaboot di fen Ousmane Sonko képp ku ne da ngay xaar ba conseil constitutionnel wax fenkat nga kat nga. dëgg moom ma sonal conseil constitutionnel bu xasee fëgg ano Youssou Ndour mi ne woon day bokk par force bi conseil constitutionnel waxam ah c'est que man Sénégal yéen rêve yi ngeen dundal Ousmane Sonko seen rêve la moom mu dugg seeni rêve ba ñu nokk ko ci kaso bi rêve yi ngeen dundal Ousmane Sonko ba ñu tasal ko parti bi yi ngeen dundal Ousmane Sonko bu ñu jël li ñuy jël yëpp teg ko ci daram te kenn mun ci dara yéen yéen a ko dundaloo ay rêve président élu avant l'heure yéen ko ko dundloo xam nga man lu ma métti Sénégal ni doo xam kuy nax boppam à la fin xam nga Macky Sall ma neex si mooy ñoom li ñu nekk ñu ngi si ñu ngi ciy dëgg ndeyam di dem ñun nag tey ñooy jaune suba ñu vert suba ñu rouge suba ñu bleu suba ñu marron bu yàggee kenn du xam lu ñu niru te yaa ngi ni rumandaat loo xam ne bés bu ñu wekkee Bassirou Diomaye fay di ngeen bëgg a tegaat peuple bi si guidon mu tëleen maa leen wax wax leen xale yi dëgg wax leen askan bi dëgg wax leen askan bi ci luy tax ñu changé système bi kay yaa ngi ni teg askan bi loo xam di fen loo xam ne bés bu ko askan bi yëgee liy tooy si yéen lay joge mais du jóge ci askan bi gis nga askan bi sont déjà éveillés très éveillé surtout cette jeunesse là ku yaakaar ne di nga ñëw ci làmmiñ bu neex di leen nax di ruutale ba jël benn kañ un imbécile tegal ñu ko président vous vous trompez Sénégal bàyyee kenn moom ko du bàyyee Sonko du bàyyee Macky Sall du sama baay soyez logique là-dessus papa yi kenn moomu ndey réew mi dañ ko fonde teg ko ci ay sook pour mu dox man duñ ma xeexloo ba fii naan ma ay jàmm ay da ngeen dul bi ngeen xamee lii doomu jàmbur duñ dee man nee naa la moori yi yi mooy tax ma matta nday ñëpp Sénégal moor yi mooy tax dinaa matta ba mattaale nday Ousmane Sonko à cause de ses morts sacrifier nday ay doomu jàmbur bëgg a xëy tey ku nekk naan la non nañu fexe dem élection sans kenn duma ma dugg ci ay manipulation wax naa lañ ko muy leer politique bi ñuy manipuler ñun loolu lañ ne dañ koy soppi politique bi ñuy toog di dul askan bi pour falu loolu ne woon dañ koy soppi man nag bi may jàppale jàppale ma woon un politicien ndax politicien du soppi mun mënoon ne politicien nga da ngay soppi système duluticien nga gën a jege ko politicien mun dëgg ma ma sonal ñun réew depuis 1960 ñu ngi ñuy imposer seen volonté. ngeen ni ko nangu yéen ñëpp laa wax ñu ngi leen di seen volonté ngeen koy nangu bu ñu waxee si sëriñ si am ñuy wax lu ñaaw lu rafet yes I big brother I am fine man <laughs> fine yes I <laughs> Sénégal ndax sa bopp mu ngi yem ci taxaw ne man lii laay def fii laa jëm ba ci biir nga ne jëmatuñ fa te am nañu dee ba pare prison baa ngi fees jël papa yeeg yaay yeeg doom yeeg ñëpp a ngi ci kaso bi ndax sa bopp mu ngi yem si war financer xeex pour nekk électeur di financer musique ak bongo pour parenage parrainage soi-disant parenage boo xam ne pétition la di sax ay parrainage far c'est une pétition parce que on t'a demandé quarante quatre mille 4 millions bu ñu signé conseil constitutionnel il s'en fout devant 4 millions de signatures là il s'en bat les couilles de ça député Pastef fii léegi Pastef arrangé wuñu dem dialogue fii léegi Sonko dem dialogue député Pastef ku ci parrainé dañuy wekki sa ndey ndax le parti a été dissous man dëgg moo ma sonal nee naa leen doo leen ma dugal seen diidi di duul tenes bi ñuy dundee ndeyu yaakaar ba nga ñëwaat tasaat seen yaakaar du ñu am raisonnement xeex man loolu laa dul nangu ndayam saa yi man ki ma jur xamul wax waxet de ki ma jur daal dëgg ndeyu De dëgg ndeyu Senghor dëgg ndeyu Abdou Diouf dëgg ndeyu Ablaye Wade xamul wax waxet benn kàddu la am du wax ñaari yoon munu bokk si ñuy wax ñaari yoon de ñëw di def ni carte gi naan la da nga war a wax comme ñëpp la fël ndeyu fen nee naa leen yàlla terewul rey nit rey nit amul fenn fuñ ko tere ci alxuraan jël bakken lañ la wax bu se si bu la nexé mais ray nit amul fenn fuñ ko tere tere jël bakken top na si top ci deru doomu jamburu ba yakal nday doomu di aduna am dootu mën genn lolo jël bakken moy fitnal nit alxuraan terewul katt kenn gaay yi katt di biira ba tay tay yalla rayul kenn alquran fen la tere fen te politique bi nag mënatuñ ko politiquer ci ay douli kessé deuk di doul ci politique ne politiciens day doul loolu la dotul nangou gor sa wax ja nit sa cadeau ba même boy def communication cette communication là deug bi ñu xamé won woon ne dëgg sax pour bu kenn am buntu bu mu ñuy dóoree mais tay nga du wax deug bu zone ba nga bëgg wax kenn duma duggal nday seen bi ngeen bëgg ma wax ni kenn duma ko wax lo personne personne nak la leen wax kenn amul maqama bi suba ma ko woowoon tay dama ma ma saaga pour muy clair ma won leen ne man sikki mu kenn nenuma chaque jour ma wax ko duma sikki papay kenn chaque jour je vous répète ça il faut que ça s'arrête nit ki Sonko yaay mën a génn yow yaay mën a bind lettre jox ko ñëpp leen lii mooy règle bi lii mooy texte bi kii mooy dem élection mais bëgg na Bassirou Diomaye fey ba pare ku nekk naa la non dañuy nëbb suñu candidat déedéet da ngeen ni pare li ngeen ni fenaat bu la ne da ngeen ni nëbb candidat bi diñ non stratégie la dañuy nëbb léegi daal bu dee Macky Sall ñu la Macky Sall dafay fen dafay teg pexe bu dee Pastef ñu ne la stratégi la eh xam ngeen luy signifier stratégi pexe yi duul fen pour jàll mooy stratégie da ngay jéem a nax sa morom kon ci fen nga koy naxee pour time ko ñu état di fen opposition di fen foog ñu waxante ndeyu dëgg si réew mi waaye on en a marre de bon mythomanie waaye yow da ngay nekk ndeyam ci combat nekk ci nekk ci nekk ci ba combat bi sax ba nga commencé gagné ay intérêt politique tax ku nekk di dul ay intérêt de soubassement tax ku nekk di dóol waaye cottu nday réew mi dootoo xam kan ak kan a jub dootoo xam kan ak kan lay wax dëgg moo tax su ma waxee ngeen naan ma xanaa gara faraloo ndey Sonko eh eh faralu ma ndey Ousmane Sonko muy leer léegi yàgg naa leen ko wax muy leer ndeyam jamono fuu ci kuy faral Ousmane Sonko xam man ku ma faral Sénégal nu muy def ba baax laa faral ndeyam depuis 1994 maa ngi sama xeexu Sénégal sama groupe rap Wondang Possi 1994 boobu na mu ñuy wax kan moo ci kat a ndeyam di rap ku dul Salam

jamais de la vie ne du pas soutenir ay fen pas soutenir kuy je ne l'imagine jamais je far damay far ci suis un homme sa wax ja Ousmane na da ngay un wax ni te nga taxaw sa la franc da ngay taxaw reconnaître la vérité ne eh, joxe naa franc je ak lii xam nga sur la place publique mu xam nga lo wax ñu la no da am fu ñuy yem du wax lepp ci réew mi amna na nag fu muy man bala onze lay xaar xeexu len Ousmane Sonko jallul Sonko waxul kan moy candidat après ñu jël dossier yëpp tek ko sur la place publique ñanax ñalay dem waxtaan ñan ñoo nekk ci dialogue jaww ji ñu nekk ci dialogue fili ñu nekk ci dialogue ru auto yi ñu nekk ci dialogue yëpp ça va se savoir ça va se savoir fokk ngeen am luy deug ci rew mi melna ku ñu nampal ween buy fen buñ lay wax deug da lay sonal ndax sa deret mo fen 17 millions de sénégalais 15 millions yëpp dul kat lañ leen nampal seen yaay yi dañuy fen motax tay bo leen ni fen wala tay ku leen wax dañuy bëgg ku leen wax lu leen neex pour ñu fan la eh bu leen ma katatu ndayam sétane dama ben benn nit di le fal ndayu lolu ba xam ndax man Ousmane Sonko may dundal wala yéen seeni baay ñoo may dundal man waaye dëjju ndayu Sénégal waaye yow dëkk di duul suba ngoon bëgg koy far ci duul yi qu'est-ce qui se passe Sénégal tey ñu ne kii mooy gagné suba kii mooy gagné gannaaw suba kii mooy kii mooy élection kii mooy électeur te ça trois mois balaa ñoo xale yi ça fait un an balaa ñoo rey xale yi lu ne lañ leen fi dig ñoo kay gañe ñoo koy gañe ñoo koy gañe di dul man kese lii man kese lii tey ngeen bëgg ñu ñëw naan ay stratège stratégie médiomanie mani di fi amee ndeyam gor sa wax de moo fi am fii fii kuñ fii falaat c'est parce que sa kàddu dañ koy respecté ñun kenn rek moo fi takkul kenn doo nga fi setagum keneen kuñ ñu fi bëgg imposer nag ndax lan man mënatuma dem léegi nag volonté Macky Sall ndeysaan maki Sall am doole Ousmane Sonko moo ne kenn du ko xoj waxtaan kenn du ko xoj muy waxtaan tey de dañ koo xoj moo tax mu am fitu ne leen dem leen kéwal Bassirou Diomaye Faye ak bu dee moo ko wax ak bu dee moo ko wax aywa kenn du ma xoj pour négocier ak man tey il est de négocier parce que dès nga ne plan B rek te en train de négocier joxe nga benn côté danga soxla beneen côté bi pour nit ki ñëw wax ak yow pour nga mën a teg li ngay soxla déedéet bi nga xamee loolu nga demoon dialogue maa bañ négatif man kenn du ma wax loo politique lu ma xamul kenn du ma xam loolu xew si suufu table yi bi nga xamee ne da ngay wax plan B biñ ne bëreet yow yaa waroon teg tey say code teg say règlement dem si dialogue bi imposer lu ngay imposer mais paa xaar ba heure bi Non, non nous def comme élection législative élection législative il fallait que yow nga nous expliquer réew mi ñu comprendre pas le cas bii du yeewi di wallu bii du groupe doomu la bu ñu diriger pour 5 ans c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement sérieux Nous xaraam di melni Sall dootul jox suñu nous kuy layam layame wala ne dañ lay fal ba paré suñu xel di dem gauche droite lañ jox Sénégal personnellement loolu état dootul def erreur boobu erreur bu ñu def ba doy maraam Macky Sall bi maîtriser réew mi doomu toccottu ndey bi di def lu ko neex ngeen toog fii naan ma ay am parrainage bi di tëgg bongoog di fecc di ree ñii di defar ay laax ñii di defar ay ngalax fay ay bongo man pour ñu dem parrainé ji fay ay musique pour ñu dem parrainé ji boobu xeex bi nekk fi ñu ngi tëj ndey Ousmane Sonko yéen ñëpp yaa ngeen seen biir kër yi tey bu Sonko fenee yéen a ko fen loo bu Sonko fene yena fen tay ku jiñ Sonko kat rek na ci bolé nday patriote yépp ndax yeen la waxon keur Massar ndax paré ngeen tay buñ ne Sonko li la yeen patriote yi loolu ngeen ñi da ngay dëggu fi la ngeen dañuy tecc Sonko patriote yépp bañ ah ku nekk mel ni ndeyu ay bayu tabaski di mbey ndey mbey bu wàccul yaa combien de mboor tay tecc nañ ndey Sonko wala tëjuñu da ngay wax ñu lay woo di la raisonné naan la non fa nga waxee ku ma woowaat na ma fa waxee te ñëpp fi wax ma tasa cott ndey woowaat ma rek na ma fa waxee fi ñëpp di waxee. fils de pute da ngeen seen i manipulation man ma ciy topp di manipuler peuple bi je je ne suis pas un manipulateur sama baay jurul kuy manipuler namp ma nday weenu fenkat fils de pute. na ngeen foog ne man dinaa far ci lu dul dëgg dëgg moo ma sonal keroog bi ñu destitué Pastef ça fait combien de leen ne ngeen xam nga xamu leen état. di ngeen font ba ñu ñux seen ndey si pax bi te yegg siwul o wax ñu naan eh kenn du fi ndeyu Seydina fii benn Seydina fi am rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ma fi kenn waxati ay Seydina diw ak diw ñun on se connaît nous sommes des hommes de terrain bàyyi leen ndeyu affaire u Seydina eh, di jël di gis nga yéen yéenay jël ndeyu Sénégal jël ginaar sa xaw ko yuuxu foog ne éléphant la fekk du éléphant ginaar bàyyi leen di yë No, look for a time.